mbokki déglukat yi asalaamaaleykum mu ngi nuyu ñépp ci turu yàlla aji yërmande ji bëgg ñépp xam yoonu mucc wi te jaar ci sunu mbégte rëy na ci lu nu yàlla may nu mën a dellu si ànd ak yéen ci émission yoonu njub tey jii nag xarit yu ñuy déglu danu fas yéene tàmbali ay njàng yu toftalante jëm ci fukki ndigali yàlla yi noonu dinanu gis ni ko yàlla wàcce ñamu ko wàcce woon ca ñoom lu tax yàlla wàcce woon fukki ndigal yi ak lan mooy njariñu fukki ndigal yi ci bépp doomu aadama ni ngeen ko xamee bi yàlla sàkkee nit dafa bëggoon dundinam dëppook coobare boroomam yàlla mi nu sàkk amul keneen ku ko gën a xam ni nu war a dunde ba tax na gannaaw ba nit bàkkaaree teewul yàlla wéy ci bëgg ko noonu yàlla di fexe delloo si nit ci moom mu jëfandikoo ay pexe yu wuute ngir waajal nit ñi di ca misaal pexe mu wér mi mu nar a jëfandikoo ci mujjug jamono fukki ndigal yi bokk nañu ci pexe ak misaal yi yàlla jëfandikoo ngir waajal doomu aadama yi yàlla wàcce woon na fukki ndigal yi ngir ñu nekk gindikukaay ci doomu aadama yi fukki ndigal yi dees na ko tudde itam yoonu muusaa wi ndaxte ci yonent yàlla muusaa la ko yàlla jaarale bi mu koy jottali doomu aadama yi yéen a ngi fàttaliku ba yonenti yàlla ba ak fukki doomam yu góor yaak ñaar toxoo réew misra ngir rëcc ci xiif bu metti ba ca ndoorte la dëkkoon nañu ci jàmm foofa ca misra waaye diir bu yàgg gannaaw ga beneen buur falu ca réew ma te ñu tàmbale di fitnaal sëti yanqooba ya di bànni israel ñu def leen ay jaam diirub ñeenti téeméeri at ca réew misra mooma nga xam ne ay doxandeem lañu fa woon waaye loolu du woon li ñuy tudde hasard ci ñoom dafa dëppoo tembe ak ni ko yàlla xamale woon maam Ibrahima ba mu ko déglul bu baax li ma lay wax sa askan dina nekk ay doxandeem ci réew mu ñu moomul ñu di leen def ay jaam lakkal leen diirub ñeenti téeméeri at waaye waa réew moomu leen di def ay jaam dinaa leen àtte bu loolu amee nag sa askan dina ca génn ak alal ju bare ba loolu xewee nag njaam ga metti lool yuuxi bànni israyil àgg fa yàlla yàlla daldi dogu ci dagg seen buumi njaam yàlla feeñal ci seen biir yonent bu tudd muusa jëfandikoo ko ngir xettali bànni israyil mu génnee leen ca njaam ga ñu nekkoon xeetu israyil jëm kanaan di réew ma yàlla digoon seen maam ibrahima waaye yoon wa bare ay tolof tolof te metti ba tax ñuy ñurumtu ñu dem sax ba namm réewum njaam ga te bëgg ca dellu waaye seen njiit musa di leen dëfal ak a yedd rekk bañu tàyyi ba ñu demee ba tolloog wenn tund wu ñuy woowe tundu sinaayi ñu dal fa yàlla wax ak xeet wa jaare ko ci yonent yàlla musa yàlla dafa woo musa mu yéeg ca kaw tund wa foofa mu jox ko fukki ndigal yi ngir yee leen ci njub jubbanti leen te joxoñ leen yoonu mucc ak seelaay ndaxte xeet wa dëkkoon na ñeenti téeméeri at ca misra te yàlla bëggul woon ñu mel ni waa réew ma ci xërëm ci jaamu ay yàlla yu dul dëgg ak ci defi ñaawteef ci seeni diggante wante leneen li jara bàyyi xel moo di yoonu musaa wi dafa mel ni ab jàngalekat buy jëmale nit ñi ci kirist yeesu ngir yàlla àttenu jub ci kaw ngëm war na leer ci bopp ñépp ne yàlla joxewul fukki ndigal yi ngir ku leen sàmm tàbbi aajana su doon loolu kenn du dugg aajana waaw ndaxte amul nit ku mën a wax ne mësula xëtt benn ci fukki ndigal yi te kàddug yàlla nee na ku sàmm yoon wépp waaye nga xëtt ci lenn ndigal rekk mu ngi mel ni jàdd nga yoon wépp mu rax ci dolli ne sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla solob ndigal li mooy wone bàkkaar loolu lépp kon xarit yu ñu déglu su ngeen nu toppee fii ci émission yoonu njub ndegam neex na yàlla dinañu ci dellusi gëstondoo ci noonu ba muusaa nekkee ca kaw tundu yi mbind mi xamal nanu ne kàddu yii la ko fa yàlla bindal ci ñaari àlliwoy xeer ngir mu jottali ko xeet wa xanaa dinga ne waaw lu waral ñaari àlliwoy xeer ndax benn rek euh, dafa doyul woon xam nga dafa mel ni ab contrat la woon diggante xeet wa ak yàlla ñoom dañu digge woon ne lépp lu nu yàlla aji sax ji sant dinanu ko def noonu yàlla bind santaane yi ci ñaari aliwa ndaxte boo amee ab contrat ak kenn faaw mu nekk gën gaa néew ñaari exemplaire ku nekk deñ ci benn noonu la deme woon bosu yàlla it ma nga woon ñu denc ci kër yàlla ga lii lañu bindoon ca àlliwa ya benn bul am yeneen yàlla ndare man ñaar bul sàkkal sa bopp xërëm ñett bul tudd turu aji sax ji di yàlla seen boroom cig neen ñeent deel fàttaliku bésu nooflaay bi juróom teralal sa ndey ak sa baay juróom benn bul boom juróom ñaar bul jaaloo juróom ñett bul sàcc juróom ñeent bul seede lu dul dëgg ci sa moroom fukk bul xemmem xarit yi mënees na seetlu ci fukki ndigal yi ne ñaari pàcc la ñeentu jëkk yi di pàcc bu jëkk bi mu ngi jëm ci diggante nit ak yàlla ñaareelu pàcc bi moom di juróom benn ndigal yu mujj yi mu ngi jëm ci diggante nit ak moroomu nitam te seetlu boobu dëppoo nag ni yeesu tënke fukki ndigal yi bés ba ko ay xutbakat doon fiir naan ko kilifa gi ban ndigal moo gën a màgg ci yoonu muusa yeesu tontu ko ne nanga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp te nanga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp nun nag dale ko tey ak ci njàng yi ñëw ndegam neex na yàlla fukki ndigal yooyu lanuy benn bennal kon léegi nu ñëw ci ndigal lu jëkk li nu soxal tey li ci yàlla santaane mooy bul am yeneen yàlla ndare man lu tax yàlla bañ nit am jeneen yàlla wala yeneen yàlla yu dul moom ci bu jëkk ñun ñépp xam nanu ne yàlla nu sàkk kon su amee ku yeyoo màggal jaamu ak ñu di ko sargal yàlla aji bind ji rekk la war a nekk te it yàlla dafa bañ ñuy jël ndamam li mu yelloo moom képp di ko jagleel keneen yàlla ci boppam moo ne buleen leen leen sujootal te bu leen leen jaamu ndaxte man maay aji sax ji di yàlla seen boroom yàlla ju fiir laa di toppatoo ñu maam yi ciy sët ba ciy sëtaat suñu ma bañee yow miy déglu nag boo déggee lii mën na am dinga ne loolu de bànni Israël rekk ko taxoon a jóg moomu ma ko man mi gëm jenn yàlla rekk ñoom ay yéefar yu ñàkk xel lañu woon ndaxte li leen yàlla defal lépp ku ñu ko defal nga war a wàkkirlu dëgg la ay yooni yoon bànni Israël dañu daan dëddu santaane yàlla moo tax ba tey ñenn ñi jéppi leen te di leen ŋàññ waaye déglu li kàddug yàlla wax mu ne mbir yooyu bind nañu ko ngir àrtunu ñun ñi dund ci jamono ji lépp mat kon nag kiy naw boppam ba yaakaar ne taxaw nga moytul kon nag yow mi am ay nopp déglul bu baax bañ a xarab jamono jooje bànni israel nekkee jaam ca misra waa réew ma dañu daan jaamu ay yàlla yu bare firaw na seen buur sax ci yàlla yi ñu daan jaamu ak a màggal la bokkoon ba tax kàddug yàlla wax ci ñoom ne tegoon nañu seen bopp boroomi xel fekk ñu ñàkk xel lañu toxal nañu ndamu yàlla aji sax ji wuutal fa nit ku dul sax moo tax yàlla bërgal leen ci seeni bëgg-bëgg ñu soobu ci ñaawteef toxal nañu dëggu yàlla tëral fen di màggal ak a jaamu bindeef ba faaleetuñu aji bind ji yelloo cant ba faaw noona la yàlla bañoon bànni Israël ak doomu aadama yépp mel ko waaye ndeysaan ba tey noonu la nit ñuy jëfe kon nanu fàttaliku ne nun ñépp fa kanam yàlla ay njàddare yu ñàkk xel lanu tanewunu bànni israel ku naa naafequl rekk mën a seede ne tey jii it bari na ñu mel ni ñoom ndaxte ba tey nit a ngi teg moroomu nitam palaas ba yàlla képp yeyoo ak réer la te ñu bare gisewuñu ko ni waaye képp ku sàggana santaaneb yàlla bile sax ci di ko moy li wér mooy laax dina la lakk te loolu la la yàlla di bañal ba tax mu lay artu ci ndigal lii neexul ba neexul waaye ñi nga teg fa yàlla ci boppam waroon a toog xamal ne ñoo di sa yàlla nanu koy fàttaliku ndaxte yàlla kat bëggul ku toog ci palaasam wax na ko bi mu naan man maay aji sax ji loolu mooy sama tur duma jox keneen sama ndam kon bu nit demee bay def loolu te fekk yàlla wax li mu wax ci ndigal lu jëkk li ne bul am yeneen yàlla ndare man ndax loolu dafa wonewul ñàkk xelu nit ak réeram moo tax mbind mu seel mi wax ne nag sax xam na boromam te mbaam sëf ràññee wuddu kilifaam waaye nit moom xamul dara amul xel loolu deful lu dul wone ne yàlla nu gën a xam sunu bopp nanu jàpp ne yàlla du waxantu li mu jublu ci ndigal lu jëkk li mooy ñépp xam ne jenn yàlla rekk a am di yàlla mi sàkk asamaan suuf jaww ji ak li ñu ëmb lépp gannaaw ba nga xamee loolu nga bañ fa yem wante nga nangu ko te mu biir ci sa dundin maanaam mu biir ci say wax ak ci say jëf ci sa digganteeg yàlla ak doomu aadama yi waaye soo yaakaaru lu dul sa kàttanu bopp loolu du nekk mukk ci yow ndaxte nit bàkkarkat la te li gën a yomb ci nafsoom mooy gëm tey topp li muy gis moo tax yéesu ne ki bég mooy ki gëm te gisuma xam te nangu na jenn yàlla rekk a am lu am solo la ci nit ki bëgg a aw ci yoonu mucc wi moo tax yow mi bëgg a tàbbi ci dund gu dul jeex gi war na nga jëkk a xam ne yàlla kenn rekk la te dafa sell ba ay gëtam mënuñu tegu ci dara lu sellul teg ca nga xam te nangu ne bàkkaarkat nga fa kanam yàlla ndegam nag yàlla ku sell la te benn bàkkaarkat mënu ko jege fenn kon yow it doo ko mën a jege sax bay mucc te it nga gis ne amul keneen ku mën a jege yàlla ci pexe boppam mbaa ci meneen pexe mu mën a doon ndaxte mbind mi nee na ñépp a ba joteetuñu ndamu yàlla bu loolu leeree ci sa bopp nga xam nag ne mbëggeelu yàlla ci nit ñi tax na mu waajaloon pexe mu ñu mën a mucce ci bàkkaar bi noot doomu aadama yépp ndax xam nga lan mooy pexe moomu dañuy gis ci tawret ne bés bi yàlla joxe muusa fukki ndigali bés boobu it la waxoon muusa ak bani israel ñu rendi ay mala ni sarax suy muur bàkkaar yàlla dafa bëggoon jàngal bànni israel la mu jàngaloon seeni maam aadama ak abel ak nooyin ak ibrahima ak i sëtam ne bu deret tuuruwul njéggalu bàkkaar du am ndegam njariñi saraxi mala yooyu moo doon muur bàkkaari nit ba keroog yàlla yónni ràmmkat bu sell bi tey jii kon gannaaw ba yeesu kirist musalkat bi ñëwee joxe na bakkanam ni sarax buy dindi bàkkaar moom mënoon na loolu ndaxte moom rekk mooy ki déggaloon ndigali yàlla yépp te mottali lépp lu jub moo tax ci kaw saraxu yéesu almasi bi yàlla mën na la àtte ni ku jub moom mi amul woon baakaar gàddul na la sa boru baakaar yéesu ci boppam mooy pexem yàlla mi mu nasoon ngir baal na sunuy baakaar lenn rekk nga war a def mooy nga gëm ko soo gëmee saraxu deretam yàlla dina la baal say baakaar may la sañ-sañu dëkk ci jataayam bu sell ba faaw noonu dootoo bokk ci ñiy sàkkal seen bopp ay yàlla ci fànn bu mu mën a doon nag kon nag xarit yi fii lanu leen di tàggoo ba njàng mi ñëw nu gëstoondoog yéen ci ñaareelu ndigal li su ngeen bëggee ay leeral ci lanu jàng tey bind leenu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis wala ngeen bindunu ci sunu adresse électronique maanaam yoonu njub arobase sentu point sn yoonu njub maanaam y o o n u n j u b at sentu point sn na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li jenn yàlla ji am képp wax ne man maay yàlla aji sax ji loolu mooy sama tur te duma jox keneen sama ndam